mu def ko mu fees dell ak jikko ju rafet yoo xam ne ñu nit dikkee ci xeeti jikko yu ñaaw ak ci buute moom dana mën a jëflante moom yàlla moo ko yar yàlla moo ko jàngal loolu sax wax na ko nee ne yàlla suñu borom moom moo ma yar rafetal yar bi ma yar moo taxit borom bi jàngal ko ay xeeti melokaan yu baree baree bari ci ay jikko yoo xam ne du yam ci moom waaye képp koo xam ne ni bëgg nga texe bu ëllëgee yomal xiyaam da ngaa war a jàng ci jikko yooyu moo tax nga gis ci alxuraan borom bi di ko digal ay digal yu baree baree bari yoo xam ne day mel ni ku koy jubbanti ak di ko jàngal te yooyu yëpp di xeeti jikko yu makaarimul axlaax muy jikko yu rafet borom bi nee na ko del baale del digle lu baax ñii nga xam ne ay way texe di lañ buñ la yàqal li ngay def xusil afwa wa amur bil urf wa aarid anil jaahiliin lii lépp ay xeet yi ndigal la yoo xam ne nii ay jikko yu rafet la ay melokaan la suñ borom di ko ko digal luñ la mën di def ci lu ñaaw booy fayu na nga xool la gën a rafet nga fayoo ko idfa billati hiya ahsan na nga xool na mu gën a rafete ngay fayoo noonu na ngeen doon aw xeet woo xam ne da ngeen digle lu baax na ngeen doon xeet woo xam ne da ngeen woote ci aw yiw di digle lu baax di tere lu bon wal takun minkum ummatun yad'una ila alxayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna anil munkar ulaika humul muflihun yii yëpp ay xeeti jikko la yoo xam ne nii buñ ko toppoon mën nañ ci indi ci alxuraan lu baree bari loo xam ne yàlla da koo digal moom it mu melokaan melokaan woowu noonu ba borom bi taggal ko boppam ne ko daal yow daal ku kawee jikko nga da gis sax sëriñ bi bu koy tàgg danaan ko li nga yor ci jikko yu rafet yow yonentu yàlla muhammad nit ñi lott nañ ci lim ko leeral ko labista siyaabal majdi wal fadli wal ula wa fiika min al axlaaqi maa ajasal kulla li nga yor daal ci ay jikko yu rafet maanaam nit ñi lott nañ ci wax xeeti jikko yu rafet yooyu yépp loolu nag lu normal la ci yonente boo xam ne dangaa ñëw ngir jàngale yónente boo xam ne da ngaa ñëw ngir tëj buntub yónente yi yónente boo xam ne da ñëw ci situation boo xam ne moo gën a doy waar ci mboolem situation ya ya ya jiitu woon kon loolu buñ gisee ay nit di wuuteeg moom muy jëflante jëflante boo xam ne ni ak jàngale la manees naa wax ne laa xarwa ci loolu loolu nag boo gisee mu doon jëflante jëflante bu rafet ak ñoo xam ne dafa wuuteeg ñoom ci diine wala wuuteeg ñoom ci gis-gis ba noppi di am ak ñoom ay ay ay ay relation yu rafet loolu yàlla moom moo ko ko digal yàlla moo ne ko terewuma la nga baax nga maandu ak ñi nga xam ne da ngay ne bokk da ngay ne wuute diine terewuma la nga am ñoom maanaam diggante bu rafet feeg ñoom xeexuñu la génnewuñ la waxuñu la du fi amee man ngaa jëflante ak ñoom jëflante bu rafet laa yanhaakum allahu an allasina lam yuqaatilukum fi ddiini wa lam yuxrijuukum min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsituu ilayhim inna allaha yuhibbu almuqsitiin imaam ahmad nee na aaya bii ñii abdulaay ibnu subayri moo nettali moo nettali xadis bi abdulaay ibnu subayri moo ko nettali doomi asma bintu abi bakrin nga xam ne mooy awalu mawludin baxdal hijra ki njëkk a juddu bi yonente bi ñëwee madinatul munawara bàyyam di subayru ibnul xawaam bokk ci al asratul mubassirina bil janna imaam ahmad nee na aaya bii nii mi ngi wàcc ci ni ko abdullah ibnu subayru nettalee nee na ci yaayam la wàcc asma bintu abi bakrin asma abu bakar mooy baayam mook sayyidatuna aïsa ñoo bokk benn bàyyi te bokkuñu ndey sayyidatuna aïsa ummu ruumaan mooy yaayam waaye asma yaayam dafa tàggoo ak abu bakrin ab yéefar la mu ngi tudd Xutayla bintu Abdul Uzza waaye mujjoon na tuub ci mujjantalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca madinatu munawara nee nañ yaayam jooju di la daa dajale woon ay kado yu baree bari bëgg seeti doomam jooju di Asma bintu Abi Bakrin Asma ne ko xaaral ma yëglu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu laaj yonent bi ne ko sama waajur mu jigéen kat nee na daa bëgg ñëw ci man seet si ma andil ma ay hadaaya yonent bi ne ko jokkal sa waajur. te yonent bi xamoon na booba ne waajuram ab yéefar la loolu imaam ahmad nee na aaya bii nii mi ngi wàcc ci asma ba mu waxee loolu yonent bi salaa salaam yonent bi wax ko lii rek ca la yàlla wàcc aaya bi laa yanhaakumu llaahu ani llaziina lam yuqaatilukum fi ddiin donte ci mufassiruun yi am na ñeneen ñu wax lu lu bokkut ak lii waaye lii lu ci siiw la yàlla laal nee na ko ñi nga xam ne ñoom ñoom laa lay tere bul am ak ñoom benn relation bu rafet bul bul bul bul bul bul ñoom dara ñi nga xam ne dañ ne la du fi amee innama yanhaakum allahu an allasina qaataluukum fi diin wa axrajuukum min diyaarihim wa axrajuukum min diyaarikum ñi nga xam ne dañoo taxaw tem na du fi amee xatal la ñoo ñooñu moom du mën a mukk ngay baax ak ñoom du mën a mukk yi ngay am ak ñoom diggante bu rafet ba fa aaya ba jeexe kon lii ay ay leeral la yoo xam ne yonent bi di wuuteek nit ci wàllu diine ba noppi di wuuteek ñoom ci yeneen ba noppi di wëlbatikuwaat di baax ci ñoom loolu yàlla moom moo ko ko digal bu ñu ëndee ay namasit yu bëree bari ci ay wuute yu am ca marxala makkiya ak namasit yu bëree bëri yu am ca marxala madaniya bu ñu digloo laytaay bii danañ xam ne lu normal la muxaalafatu rasul nag ñaari xeet la wuuteeg yonent bi ñaar la am na boo xam ne wuuteeg moom odwaanan wuuteeg moom ngir noonoo boobu moom mooy gi gën a bon moom am na nag wuuteeg moom goo xam ne nii wuute goo xam ne ak réere la loolu bari na lu muy am ci diggante saxaaba yi yonent bi ma ne sa ci indi misaal rek ca xasatu Tabuk ñetti ba mu diglee nañ la ñëpp génn ñu dem xare ji ñetti saxaaba yu baax a baax a baax yoo xam ne ñu benn ngànt lu leen tee dem xare yi ñu daw demuñu ci xare boobu ca xam ngeen ne daw ci xare ci bàkkaar yi gën a mag la bokk loolu wuute la goo xam ne nii wuute la goo xam ne mënees naa wax ne wuuteeg njuumte la ndax dellusiwaat nañ tuub tuub gu la ba yàlla nangu seenu tuub ca loolu dana feeñ ci marxala madaniya bu ñu indi ay namaasi insha allahu taala ci kanam tuuti kon ba gën a bon nag mooy wuuteeg moom goo xam ne dangaa wuuteeg moom udwaanan loolu yi am na ci lenn ci ñim bokkaloon jamono yonent bi sallallahu alayhi wa nag am na ci eh, wuute googu ñoo xam ne daa jëflanteeg ñoom jëf ngir jikkoom yi rafet yi ak jëflante bu rafet bi am na ci ñoom ñoo xam ne jëflante naa ak ñoom jëflante bu rafet ñu wuuteeg moom garde nañu nag relation bi waaye dugguñu ci lislaam waaye mi ngi doxal ak rafetal seen biir bañ sax àgg ci di joxante ay addiya lu ci mel ne buur boobu ñuy wax mu xaw xis nga xam ne ba ko yonent bi joxeeb leetar di ko woo ci lislaam duggut ci lislaam waaye daa dajale ay hadaaya yu am solo yónnee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu bokk na ci mooy soxna maariyatul xibtiya mi nga xam ne mooy yaayu ibrahima mi nga xam ne mooy caatum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak beneen soxna suñu naan Siriin yonent bi jox ko Hassan ibnu Saabit ak alal ju bari ju takkoo takk loolu lépp ca Euh, leetar yi yonent bi doon bind buur ya la ca kooko taxul mu dugg ci lislaam waaye xam na ne ki ko yónnee leetar bii ku ko jox cër la te ko baax la ca téewul dañoo wutee ca yooyu yu mel noonu yu baree bari la am na ci ñoom it ñoo xam ne bi woote bi tàmbalee ca makkatal mukarrama bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wuuteeg ñoom ñoom moom bi maanaam ni yonent bi wuuteeg ñoom ci gis-gis ak fiñ jaar moom yépp mu doxalee jëflante ñoom jëflante bu rafet ñoom dañoo daal da dugg ci lislaam yooyu danañ ci indi ay ay ay exemple yu bari bokk na ca ñooñu muy manees naa wax ne ñi gën a mag ci saxaaba yi buñ waxee Aboubacarin ginnaawam ginnaaw Aboubacarin kenn gënta mag ci saxaaba yi Seydina Omar Seydina Omar ak wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jëflante bu rafet ba mu jëflante moom bokk na ci li tax mu dugg ci lislaam bokk na ci méthode yi nga xam ne yonent bi doon na ko jëflanteeg ñi mu wuteel mooy di leen ñaanal waaye nag ñaan googu du doon ñaanu xaabaabal goo xam ne da leen di ñaanalu njëggal wala di leen ñaanal yërmande yàlla ëllëg la ëppoon ci ñaan yi mu leen doon ñaanal mooy yàlla gindi leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqim loolu noonu la waxoon suñ borom ne ko maa ngi lay ñaan ci ñaari omar yii nii nga xool ki la ci gënal nga may ma ko mu dugg ci lislaam mooy omar ibnu hisaam mi nga xam ne mooy aboo jahlin ak omar ibnul xataab te ñii bokkoon nañ ci ñi a sonal ci biir woote bi soog di tàmbali yàlla suñu boroom def naa Omar dugg ci lislaam te ku ne xam na ne Omar bi muy dugg ci lislaam jug këram jëm ci yonent bi dugg ci lislaam taxu ko woon a jug ba muy jóge këram ba muy dem ci yonent bi di ko wëri jaasi la yoroon ca daa waxoon ne fu ma ko gis danaa ko rey wax jooju la waxoon ca biir këram waaxu mu tàng moom la jaar ca Makka ba àgg ca daarul arqam ibn abil arqam googu nga xam ne fa la yonent bi nekkoon ak saxaaba yi bi ñu séenee ci fenêtre yi ne Omar la ñoom ñëpp dañoo taxaw xaw a tiit waaye yonent bi ci njàmbaaram moo ubbil boppam bunt bi téye Omar téye ci cati ji ne ko Omar xanaa jotagut nag nga seere ne amul benn buur bu yàlla ci jëflante bu rafet boobu noonu ak ñaan ga nga xam ne moo jiitu loolu loolu moo war a Sidna Omar dugg ci lislaam Hamza ibnu Abdul wuute goo xam ne yonent bi da ko wuuteeg waa màkk aboo jahlin di ko wax wax ju ñaaw baag ci di ko dóor ka saaga ci la om ci la xam sa wàcc fasam wi ñëw ba max aboo jahlin ne ko yow sama doom yi mbokk mi ngay wax kàddu yu ñaaw yi xanaa mënu koo bàyyi mag lay xamal ne la ana ala diinihi bis ni ki tey dugg naa ci diineem te lii wuute goo xam ne nii da ko wuute woon ak waa màkk ñu am nu ñu doon jëflanteeg moom muy jëflante jëflante bu rafet boo xam ne daawul fayyu ca lu ñaaw loolu ñu ko doon def même saxaaba yi sax bu ñu riiree ànd ak àll ñëw di wax danaan leen euh, digalaguñ ma ngir ma xeex muñ leen fa inni lam umar bil xitaal joxaguñ ma ndigal ngir ma xeex marxala makkiya diirub lim fa nekk ci fukki at yeeg ñaar baat boobu rek la doon wax saxaaba yi euh, Abdullah ibn Zubayr yi mi ma tuddoon léegi am na rakkam yu ñaan urwatu ibnu zubayr ñoom ñëpp zubayr ibnu alxawaam mooy seen baay asma bintu abi bakrin mooy seen yaay urwa nee na urwatu ibnu zubayr ci goney saxaaba yi la bokk goney saxaaba yi mooy ñi nga xam ne dañoo juddu dañoo juddu ginnaaw gàddaay gi xam nga bu ñu nee abdulaay ibnu zubayr awalu mawludin kon rakkam ca goney saxaaba yi la bokk daa laaj abdulaay ibnu amri ne ko damaa bëgg nga nettali ma lan moo la gën a marke ci métital yi ñu doon defar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Urwat ibn moo laaj loolu euh, Abdullah ibn Amrin Abdullah ibn Amrin ne ko bi ma ci gën a marqué da ci yi ma fekkee ca marxala makk yi ci étape bu makk daal mooy waajooju ñuy wax Uqbata ibnu Abi Muhit kooku wax nañ ne mooy dëkkandoo bi gënoon a jege yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay kër waaye mooy ki ko gënoon a sonal te yonent bi musta fayu ci lu ñaaw li nga xam ne doon na ko ko def Abdullah ibnu Amr Abdullah ibnu Amrin ne ko li ma ci gën a yéem daal mooy Uqba moomu ba mas naa fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli nee na yonent bi dalaa kolu fu mu masaa nekk daa bokkoon ci sunna mooy yonent bi dalaa teg ak kol ci ay mbaggam nee na kol gi yonent bi teg ci mbaggam daal la Uqbatu ibnu Abi Muhayt jël ak ni mu amee doole ñëw maanaam wiñaar ko ci baat bi xoj ko xoj bu méttee métti ca gisuñu cëri yonent bi benn jug nee na loolu saa yu ma koy xalaat wala ma di ko fàttaliku rek danaa am lu ma metti lool ba keroog Abu Bakrin moo jug ne ko ba ma ba ma xoqbato xoqbata ne ko ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad jaatkum wa qad jaakum bil bayinaati min rabbikum ne ko yéen daal da a fas yéenee rey ak faagaagal jëm joo xam ne waxul lu dul yàlla mooy sama borom ab yónnente laa indi ay firnde yu leer Abdoulaye ibnu Amri nee na man moom bii mooy bi ma gën a marqué ndax dama cee teg bët te metti woon na lool te yonent bi lañ ko doon def taxul mu yëkkati loxoom. bokk na ci wuute yi nga xam ne wuute na kook waa màkk ñu tuub am na benn benn seetkat boo xam ne ni ku siiwoon la ci seet dadaa jëfandikoo nag wàllu njabar kuñ naan damaat ibnu Saalaba al asdi moom dadaa mocc daa mas a wax aw nitam ne leen ki ñuy wax Muhammadu ibnu Abdullahi day bu fekkee ne yéen li ngeen di wax dafa ne ci moom ne dafa wéradi wala ak njabar da ko jàpp man su may jàkkaarloo moom danaa ko mocc ba mu wér ca dana bàyyi li muy def nee na ñu wax ko waxtu wi nga xam ne wala barab ba nga xam ne bu fa demee dana gis yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na waa ji daal di dem jàkkaarloog yonente bi sallallahu alayhi ne ko man de ab mocckat la am mocckat la damay mocc damaa damaa am xibra lool ci lu jëm ci wàllu mocc ca damaa dégg ñu ne da ngaa xaw a wéradi wéradi xel ñii nee na ak njabar da laa jàpp bu fekkee ñaari yi lu ci nekk ci yow rek man mën naa laa wéral nee na bi waxee loolu rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di tàmbali daan ne inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fa hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nee na njabarkat bi daan ne laa baamul li nga waxoon léegi yonent bi baamuwaat mu ne ko baamuwaatal mu baamuwaat ba muy ñetti yoon mu ne leen kii dofut ak njabar jàpp ko wax jii du waxi dof wax jii di waxi njabar daal di yëkkati loxoom ne ko yëkkati sa loxo ndeyjoor yow yonent bi mu yëkkati loxo ndeyjooram mu jox ko loxo ne ko jaayante naa ak yow bis ni ki tey tey gëm naa ne amul benn buur bu yàlla gëm naa ne yow mii yonent yàlla nga liñ lay tuumaal dara nekku ci yëmu ca nag daa daal di dem ci aw nitam ñoom ñëpp gurgur leen ñu ñëw jaayante ak yonent yàlla Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam moom damaat ibnu saalaba al asdi loolu ca marxala makkiya la bokk na ci ñi nga xam ne wuute naa ñoom ba noppi jëflanteek ñoom jëflante bu rafet ca marxala yi ba ca gën a ba ca gën a yéeme ca gën caa rafet ca mat a jàngat bu baax a baax a baax a baax ci képp koo xam ne da ngay wuuteeg sa moroomu nit doomu aadama ci wàllu diine wala ci wàllu gis-gis nga roy yonent yàlla Muhammad ca loola mooy ba nga xamee ne woote na màkk woote gu yàgg-yàgg ca mbooloo mi ko wuyu si bariwut mu génn jëm ca dëkk boobu nga xam ne mooy dëkk bi mag bi gën a mag bi jege mag ñu koy wax Taif mu ànd ak Saydu ibnu Aris Saydu ibnu Aris la àndaloon bi ñu demee Taif maanaam daal lañ jële ca Taif ci ay coono ñu yuuxoo leen fa sànni leen fay xeer boole kook dof yi ak xale yi mu génn ba mu génnee malaaka mi nga xam ne moom moo yore wàllu jibaal yi moom moo ñëw taxaw ci kanamu yonent yàlla xam ne nekkoo damaa bëgg nga wax suñu borom mu jox ma ndigal ma dajale jibaal yi màkk yépp wàcc ko ci kaw taayif ñu pàcc ñoom ñëpp deendoo benn yoon yonent bi nekkoo ko déedéet loolu boo ko defee ñoom dañuy daal di alku yàlla mën naa def ñu dugg ci lislaam bàyyi ko ci ñoom nee na fu mu génnee jibaal yi di ko wax loolu mu naan allahuma ihdi li xaw mi fa innahum laa yaalamuun yow yàlla gindi leen sama nit ñoom day dañoo xamut moo tax borom xam-xam yi dañ naan yërmaande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa feeñ sax ci biir wax ji li muy noonu ñoom yëpp bi muy wax sama nit la wax waxut nitu taayif li xaw mii daa jël ñooñee nga xam ne ñoo jëf-jëf ju ñaaw ja askanale ko ci boppam ba noppi ñaanal leen gindi yàlla wax nañ ne boo demee ci nuurul yaqiin wala nee nañ keroog jibril daa wàcc ne ko giñ naa ci yàlla ne ki la tuddee ar raufur rahim wax na dëgg ca dëgg-dëgg ñaari melo yi dëgg-dëgg mi ngi ci yow yooyu yonente yàlla muhammad loolu ca wuute yi nga xam ne doon na ko wuuteeg euh, waa makka ba noppi di jëflanteek moom jëflante fu rafet loolu it yàlla lam ko ca faye mooy ba mu demee ba mun madinatu munawara ca xaswatu hunayni ba mu fa jógee ba mu jaaree taayif mbooloo mu baree bari dugg nañ ci lislaam bàyyi ko ci ay xabaayil yu mag a mag mag ca taayif ca bokk na ca muy jëflante bu rafet boobu nga xam ne jëflante na ko waa Taayif bokk na ca muy bi mu nekkee it màkkatal mu karama dañ ko wax ne ko am na benn buur boo xam ne buur bu maandu la nee nañ ca suufam kenn du fa tooñ nit ca moom it du fa tooñ kenn buur boobu ma nga nekk ci dëkk ba ñaan Abasa ca Éthiopie te ngaa wax lenn ci jullit yi nga xam ne dañoo ne ci coono ñu dem ci la leen digaloon ñu dem waaye buur boobu ba mu xoolee ñi jógee màkkatal mu karama ñëw ci ñoom moom gisul yonent bi sax waaye saxaaba yi jikko yu rafet yi ñu yore melokaan yu rafet yi ñu yore nee nañ ci la duggee ci lislaam moom najaas yi moom nga xam ne euh, dugg na ci lislaam te wax nañ bi mu faatoo sax ci jamono marxala madaniya la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu yëgee ne najaas yi daa faatu ci la def salaatul xaay fa jug fa toog rek yëg xibaar ba fa jug jublu penku daa di commencé di kàbbar di julli di ñaanal najaas yi moom nga xam ne daa faatu yii yëpp ci étape bu makka bi nga xam ne mooy étape bi gën a mag gën a yàgg ci woote bi ndax woote bi ñaar fukki at la ak ñett ginnaaw ba mu amee ñeen fukki at ñaar fukki at ak ñett boo ko boolee ñeent fukki at mu jox la juróom benn fukki at ak ñett yi nga xam ne mooy ak dundam moom sallallahu taala alayhi wa sallam étape bu Makka bi di fukki at ñaar bu Madina bi di fukki at yeeg benn donte sax moo gën a néew moom Madinatu Munawwara faaye fa la yëf ya jëflante ba gën a yaatoo nag fa la exemple yi nga xam ne moom lañ mën a indi fa la gën a bare lool lool lool ca marxala madaniya waaye lii ay jukki la rek ay misaal yoo xam ne nii yii yëpp ca Makka la xewoon waaye teewul jëflante bu rafet la jëflante ak ñoom ca loola it am na lu mu jural lislaam loo xam ne ca fatxu Makka la feeñee ca ca ci ñëw léegi. bu ñëwee ci marxala madaniya bi mu ñëwee madinatu munawara madina ñetti ngiir yi ñoo fa nekkoon yi gën a mag di ay yahud nga xam ne yàgg nañ fa lool muy bannu xaynuqaax ak bannu bannu musalaq ak bannu xurays ñetti ngir yi. ñooy ngiri yahud yi nga xam ne yu yàgg lañ yu fiir lool ci liñ nekk ñoom ñoo nekkoon foofu ca madinatul munawara ak lenn ci tuuti ci ay arab ñaari xabila yu siiw yooyu ñuy woowee al aws ak xasraj ñooñu nga xam ne ñu bari ci ñoom dugg nañ ci lislaam lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñëw ca a munawara waaye dafa am sew-sew bu am ndax yonent bi bi muy wàaj di ñëw a munawara dafa am góor gu mag goo xam ne ci ñaari xabila yooyu ma wax ci la bokk aws ak xasraj ñu koy wax abdullah ibn ubayya dañ koy wax ne raisul munafiqin muy njiital naafiq yi Abdoulaye ibn Ubayy dañoo waxtaanoon waa Yasrib ba bëgg koo def buur boo xam ne mooy nekk buur buurub Yasrib kon li dëkk yëpp ame buur waaye bi yonent bi ne juux Madinatu Munawwara far maanaam yooyu yëpp dañ koo bàyyi waxatuñu lu ca jëm moom nag mu am métit woo xam ne da ko métti lool dal ba taxaw temb ci ne kii danaa fas yéene yàqal ko moom it am na lu bari bari bari bari bari yoo xam ne def na ko ci lislaam ci ay yàq yoo yoo xam ne def na ko danañ ci tudd yenn yi incha allah yonent bi mu ñëwee madinatu munawara ñett yii la fa njëkk a def ba ci njëkk mooy binaaul masjid ba mu ñëwee lam njëkk a def mooy ñu taxawal jàkka ja nga xam ne mooy masjidu nabawi yi nga xam ne euh, mooy jàkka yi madinatu munawara di ñaareelu jàkka ji nga xam ne mooy jàkk ji gën a màgg ci lislaam bu ñaareel ba mooy mu mbokkale diggante muhaajiruuna yi nga xam ne ñoo bàyyi koo màkka ak waa ansaar yi nga xam ne ñu ngi séddalikoo ci ñaari ngir yi ma wax muy aw ak xasraj mu boole leen loolu mooy ñaareelu jëf ju ji nga xam ne def na ko madinatu a bu ñetteel bi nag mooy li ñuy tuddee wasiqatul madina maanaam benn benn maanaam kóllëre goo xam ne da ko fas yéene amaloo ak ñetti giir yi mag yi ma tudd léegi mooy ay bunuut ay article yoo xam ne dañ koy bind ñu signé ko ñu fas yéene doxale ñoom loolu rek doy na sëkk ci exemple boo xam ne nii manees na ko nettali mooy ñii ay yahud lañ bokk ci giir goo xam ne nii ñooy diina ji nga xam ne ñooy ñi gën a bañ jullit yi diine ji nga xam ne ñoom ñooy ñi gën a bañ arab yi yonent bi sallallahu alayhi fas yéene toog ak ñoom bindante ay sart yoo xam ne dañ koy respecté kenn ku ne jaar ca loolu loolu boo demee ci kutubu siira yi da nga fekk bunut yooyu yenn ñu andi ko ca danañ ci tudd lenn. bokk na ca bunut yu bunut yooyu muy article yooyu nga xam ne signé woon nañ ko tudde ko wasiqatul madina maanaam wasiqa boo xam ne saa yu ko defee nag daanaka da nga dégg xasatu bani xaynuqaa xasatu bani bani euh, mustalaq ñooñu ñëpp def na gi def na xeex ak ñoom ca li ko waral mooy bunut yooyu ñu defoon muy wasiqa boobu ñoom dañoo dem ba nga xam ne dañoo jalgati loi yi nga xam ne moom lañ ca defoon bunut yooyu bokk na ca muy ndax yonent bi nag bi muy ñëw madina bokkut ak màkk nag léegi dafaa ñëw ak doole ak teeru bu rëy boo xam ne aws ak xasraj dugg nañ ci lislaam nga xam ne fii moom maanaam buur la fiy doon kilifa la fiy doon moo tax ba mu ñëwee daa daal di dagg jàkka ju rëy rëy rëy ca madinatu a bokk na ci bunut yooyu comme moom mooy teg ay article ñoom dañuy xool la nga xam ne manees na ko ànd ak ñoom ñu ànd ci ak moom lu ñu ci mënut ànd ak ñoom ñu xool nañ def bokk na ci bunut yooyu mooy yahud yi seen diine jullit yi ak seen diine maanaam lëkkum diine ñoom seen diine jullit yi seen diine maanaam xorriyatul ixtiqaad maanaam kenn ku ne am nga sañ-sañu doon li nga doon maanaam yahud bi amul amul sañ-sañu forcé jullit bi di ko woo ci yahutam jullit bi it amul sañ-sañu di forcé yahud bi di ko woo ci lislaamam ca loolu mooy li yàlla yox naan laa ikraha fi loolu mooy band bu njëkk bi band bu ñaareel bi mooy bokk na ci mooy yéen yahud yi may nañ leen ngeen def taxaaluf maanaam ngeen ngeen lëkkaloo ku leen soob ba des waa Xurays boo bande boobu ci la bokk mooy yonent bi nee na man daal du leen may mukk ngeen lëkkaloo Quraysh ga nga xam ne ñoom ñoo ma génne ñoo ma xañ lu bari ak sama waa kër di saxaaba yi loolu moom duma ko nangu nee nañ yahood yi daal di d'accord ca bande boobu noonu nga xam ne ca bunud yi la bokk bokk na ca bunud yooyu noonu nga xam ne defoon na ko ak yahood yi ca madinatu munawwara mooy maanaam kenn ku nekk ci ñaari kuréel yi muy kuréelu yahood yi kuréelu jullit yi ñoo bokkandoo madinatu munawwara képp koo xam ne daa song dina dañuy doon bo benn bopp yëkkateendoo dóorandoo dalandoo ci kawam loolu ci band ya la bokk yahudi daal di d'accord ca band boobu noonu bokk na ca bunut yooyu mooy ñun ñaari xeet yii nii nga xam ne yéen ay yahud ngéen ñun ñu di jullit séq nañ sañ nañoo laabirante sañ nañoo digalante lu baax ak terente lu bon loolu ca bunut yi la wax nañ ne bunut ya lu lu jege juróom fukki bunut waaye yii mooy ca gën a fës yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam siñente woon na ko ak yahud yi nga xam ne dafa wuute woon ak ñoom diine te lii jullit bu ne noonu nga war a dundee ak sa moroom moo xam ne nii euh, bokkut ak yow diine loolu benn la ca bokk na ca jëflante bu rafet bi nga xam ne da koo jëflante ak ñi nga xam ne da wuute ak ñoom diine muy la xewoon ca sulxul Hudaybiya Hudaybiya ab place la boo xam ne ca wetu Makka la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa waaj ngir bëgg a umra ji yor ngànnaay sol na yére um umra ànd ak waa këram ba ko waa Màkka yëgee dañ ne ko doo dugg ah tey moom doo dugg moom ñu la nga dugg Madinatu Munawwara at mii di ñëw daal mii di ñëwaat danañ la may nga dugg foofa ci gàttal ci tënk rek def nañ fa foofa it ñoom it ab musaalaxa boo xam ne da koo def ak waa si moom yonent yàlla Muhammad bokk na ci musaalaxa boobu noonu wala taaluf boobu nga xam ne def na ko wasiixa boobu nga xam ne bind nañ ko ak waa waa Makka tudd naa yee léegi waa Madina yi bokk na ci mooy Euh, jox nañ ko sañ-sañu bu déwénee mu ñëw umra si te buy ñëw du fi def lu ëpp ñetti fan tayit buy ñëw du ëndaale ngànnaay day ñëw ak yére umraam danañ ko may mu dugg màkka def li mu bëgg def bu paree mu génnaat loolu bokk na ci bunur yi ñu siñe waaye da ca am bànn boo xam ne nii moom daa mandiwut dara dara dara ca saxaaba yi ñoom ñëpp a jéngu woon ne ko yow yonente yàlla Muhammad lii moom duñ ko nangu ca loolu mooy képp koo xam ne dafa dawee ci yéen yéen waa Xurays waa Xurays ñoo ne ko ku dawee ci ñun ñun waa si ñëw ci Madinatu Munawwara ci yow dang ñu koy delloowaat nu mu gën a gaawe te yow ku dawee ci yow ñëw ci ñun duñ la ko delloo Omar ne déedéet loolu kenn du ko signé yonent bi ne suñ borom wax yu ko ne ko luñ la wax rek nangul nee nañ ñu wax lépp ñu nangu loola nga xam ne def nañ ko ca euh, bunuur yooyu nga xam ne ci Xudaybiya lañ ko defee woon Omar bi mu noppee ñëw na ci yonent bi di kaas ne ko yow yonent yàlla Muhammad ñun ñoo ne ci dëgg ñun la yàlla àndal ñee ci neen lañ nekk lu tax ngay nangu ku dawee ci ñun dem ca ñoom ñu bàyyi leen ñoom ñu téye ko ca ñoom ku dawee ci ñun duñu leen bàyyi yonent bi ne ko Omar yàllaa ko yonenteem bu ñu àndee ci dara Omar amut sañ-sañu di ci dugal xalaatam Omar di jooy ne ko yàllaa ko yonenteem wax nañ dëgg te loolu lépp booba euh, bokk na ci sax biñ noppee yonent bi daa signé Muhammadu Rasulullah moo ma nekkoon signature am waa Màkka dañ ne ko signature bi d'accord uñ ci ñun buñ gëmoon ngee buñ gëmoon ne ab yónente nga lii lépp du am suñ diggante yow suñ problème lépp mooy yónente gi ngay woote ci ñun gëmuñu ko yónente yàlla Muhammad ne effacé leen loolu boobu Ali yi moo doon bind sidna Ali ne baatu Muhammad rasulullah moom xolam mayu ko mu di ko mu di ko effacé bi daal di wax ne wan leen ma fi mu nekk ñu wan ko ko mi ngi nii mu effacé ko effacé bismillahi rahmaani rahim daal di bind lañ bëgg loolu lépp ci ak rafetal la ci ñi mu wuteel ñi mbokkal wutee ca loolu rafet la bokk na ci mooy islaamu xaalid ibnu walid jàmbaar jooju noonu xaalid ibnu walid ca sulxul xudaybiya gii ma nettali léegi moom bokkoon na ci pexem mooy dane woon su ma gisee Muhammad ak waa këram ñuy julli comme ñoom ni ñuy jullee daa métti dañuy jékki-jékki ne dëpp seen jëyi lu yàgg a yàgg duñ talati kenn ku yàlla bu ñu defee loolu rek dama leen fay fekk ak jaasi jar caw leen ñoo ñëpp yàlla dégg xalaat boobu waa xaalid ibnu walid di def mu jox leen ñu def salaatul xawf maanaam bu ñuy julleeti ñu yor ay ngànnaay ñii di julli ñii di toog wala ñii di garde ñi nga xam ne dañuy julli loolu li ko waraloon mooy loolu Xaalid ibn Walid doon waaj waaye dafa am lu am solo loo xam ne yonent yàlla Muhammad def na ko ci siyaasa bu am solo loolu mooy lan mu yonent bi gis benn frère bu Walid Xaalid ibn Walid ku ñu al Walid ibn nga xam ne moo Xaalid ibn Walid ñoo bokk lépp yonent bi ko gis ne ko waa ana Xaalid ibn Walid Walid ibn Walid ba mu demee ci Xaalid ne ko yonent yàlla tudd na saw tur laaj la Xaalid ibn Walid yaram yi daw mu ne ko ndax dafa tudd sama tur mu ne Xaalid ibn Walid la ma wax mu daal di ñëw ci yonent yàlla Muhammad wax ñaari baati seere yi dugg ci lislaam loolu maanaam jëflante bu rafet la ki nga bokkal wuute jërul ngay bañ a tudd turam jërul nga di ko bañ a laaj laaj googu mu laaj ku toll ne yonent yàlla Muhammad laaj Xaalid ibn Walid loolu moo daw yaramam ba mu dugg ci lislaam moom Xaalid ibn Walid bokk na ca mooy gasatu badrin bi mu amee saxaaba bi ñuy wax xoseyfa ibnul yamaan kooku la ñuy dàkkantele saaxibu sirri rasulillahi sallallahu saxaaba bi nga xam ne moom la yonent bi doon wax ay secret yoo xam ne daa desoon digganteem ak moom bokk na ci mooy liste naafiq yi nga xam ne yonent bi xamoon na ko joxoon na liste boobu xoseyfa ibnul yamaan ca xissa bu gudd la ba omar ñëwee di ko laaj ndax liste bi man sama tur bokk na ca mu ne ko yow omar boo ci bokkee xanaa jullit yëpp ci lañ bokk ci la omar génn xoseyfa ibnul yamaan da doon génn jëm badar dajeeg waa mak waa mak yi jàpp ko ba koo rey ne ko yow fan nga jëm mu ne leen man Madina laa jëm ñu ne ko déedéet ca Mouhamed nga jëm mu ne Madina laa jëm ñu ne ko boo mënee signé ne boo doo dem ca Mouhamed ànd ca xare ba ñu bàyyi la nga dem nee na mu signé loolu ba mu ma si yonent bi ne ko dama bëgg a dem Badar yonent bi ne ko loo signante ak ñoom mu ne ko damaa signé ne du ma ànd ak yow xeex ci xeex bii di Badar yonent bi ne ko defal la nga signante ñoom ak Badar ni mu toll Xusayfa ibnul Yamaan te fekkewu ko ca li ko waral mooy wuute gum wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi ñee nga am loo waxanteeg ñoom kóllëre goo waxanteeg ñoom sa bakkan mucc na nga fexe ba na nga def loolu yow Xusayfa ibnul Yamaan teewutoon ba dara ca loolu moo ko waraloon bokk na ca wuute yooyu nga xam ne da ko doon wuuteeg waa Madinatu wara ca teewut muy jëflante ak ñoom jëflante bu rafet ca atum juróom-ñaareel bi atum juróom-ñaareel bi moo daje xasatu euh, xaybar xasatu xaybar benn dëkk la benn village la bu nekk ci wetu Madinatu Munawwara fees dell ak i garab garab yi tàndarma nekk yahud yi gënoon a riis ci sibhu jasiratul arabiya ñi ngi dëkkoon xaybar nekk ay yahud yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare boobu xare bu yàgg la boo xam ne mat na juróom-ñaari fan ndax yahud yi nangu ñoon a xeex buñ xeexee bu leen neexee nawaat kàpp tëj seeni i bunt ba subaati ñu génnaat nga xam ne juróom-ñaari fan am na ko ca juróom-ñaareelu fan ba la yonent bi ne gadan la utiyanna raayata li rajulin yuhibbu llah wa rasuluhu wa yuhibbuhu llah wa rasuluhu suba dee danaa jox koo xam ne raaya bi su ma ko ko joxee danañ am ndam du ma joxee turam nag jëmm la joo xam ne daal ku bëgg yàllaa ko yónenteem la yàllaa ko yónenteem ku ko bëgg lañ saxaaba yi daal dem fanaan kenn ku ne jàpp nga ne moom suba yow la ñuy jox raayam ndax suñu taxawoon fii ci jataay bi ne suba ku ñuy danañ jox nangam koo xam ne nii ku bëgg sañ Tuubaa la kenn du ci génne sa bopp saxaaba yi kenn ku ne yaa ngi fanaanoo suba nu may téyee raayam bañ xëyee yónente bi xool mbooloo mi ñëpp gisut ali mu ne ay na ali ñu ne ko innahu armat asaabahu ramat ya rasulallah kooku day dafa wànneen mu ne leen dem leen andil ma ko ñu andi sidna ali mu ñëw wommat ko ba mu ñëw bët yi tappaloo ak wànneen yonent bi ñaan ci loxo ndeyjooram tàpp ci bëtub ndeyjoor bi ñaanaat ci loxo ndeyjooram tàpp ci bëtub càmmoñ ba ali nee na bisub keroog laa am laa gëj a jàmbat ci ay bët yu métti mu jox ko raaya bi ne ko doxal ci lañ amee ndam loolu ba xare ba jeexee nag daa am soxna suñuy wax sëy na bintu Jaxsi euh, astafurlah na bintul Xaaris kooku ab yahud la bu mag ku bari pexe daa ñëw ci saxaaba yi ne leen dama doon laaj yonent yàlla Muhammad lan la gën a bëgg ci ndawal dama ko bëgg a yàkkal saxaaba yi ne ko suux sàngam la gën a bëgg mu jël suux woowa def ko ak posen ba mu saf sap posenaale gàtt ba yépp nag def ko ci ndab lali nàppam ñëw indil yonent bi ne ko dama laa yekkal tey yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ubbee ndab la rek daa daal di jël suux woowu nga xam ne moom la gënoon a bëgg waaye ba mu yëkkatee suux wa da doon sàbbaal ne ko bu ma lekk dañ maa tooki sumiha tasbiha taam tasbiha taam fii kaffi afdalil anam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di woo soxna ko li nga def loo ci jublu ndawal gii nee na ma dañ koo tooke ci da nga koo tooke mu ne ko waaw man maa ko def li tax ma def ko nag naa la ko wax mooy coow li daa bari ci yow kenn nelawutu ndax yow ñëpp ngi naan Muhammad Muhammad bu fekkoon ne li nga nekk ay dóor la fi ngay yem mu jeex waaye bis ni ki tey gën naa ni yow ab yonent nga lii mënu laa rey kooku na yonent bi def mooy da koo jéggal waaye nag daa am leneen lu ca xewaat nag ginnaaw ba ndax dafa am saxaabi bu ñuy wax bisru ibnul barra moom daa lekk ca ndawal googu ba mu lekkee ca ndawal daa daal di faatu ca nag ku faat ab jullit ca tey ko moo xam ab yéefar la wala ab la dañ lay rey ca yonent bi nag li muy baax baax daa dugg nag ci di def intervention ci atte boo xam ne yàlla da ko teg moo tax nee nañ soxna soosu ci loolu lañ ko reyee ginnaaw ba nga xamee ne yonent bi baal na ko la xewoon digganteem ak moom mu jaayanteeg yonent yàlla Muhammad waaye nag rey nañ ko ngir bisru ibnul barra moom nga xam ne daa faatu ca ñam woowu noonu loolu jëflante bu rafet la boo xam ne yonent bi jëf na ko ak soxna soosu ñuy wax Sayna bintul Xaaris muy almaratul yahudiya googu nga xam ne moo xewoon foofu ca Xaybar bokk na ca jëflante yu rafet ya ca Madinatu Munawara boo xam ne nii gone gu ndaw la goo xam ne ab ab surga la woon ci kër yonent bi waaye nag ab juif la woon maanaam ab yahud la woon gone gi dafa fa tawat si buru fan yu bari ñëwul liggéey si ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñokket dem ci kër xale ba ñëw toog ci wetu bopp bi di ko seet xale bi yëf yi rëy ci moom lool ndax daa dajale yu bari moom gone la yonent bee ko mag fuuf ba noppi di yonent yàlla muhammad mu jógee këram ñëw di ko seet gone gi woo baayam mu ñëw baay bi toog yonent bi sallallahu alayhi toog ci wetu baay bi ne ko doo dugg ci lislaam déy ko ko ndànk ci nopp bi xale bi daal di siggi xool baay bi baay bi ne ko at toppal li abul xaasim wax yow mi defal li la abul xaasim wax gone gi daal di wax ñaari baat seere yi keroog bi yonent bi génn ci kër ga dane maa ngi sant yàlla suñu borom mi nga xam ne mu muccal na ko ci sawara ci loolu jëflante bu rafet la boo xam ne li ko waral mooy gone gi li tax baayam ne ko defal li abul xaasim wax gone gi ànd ci li abul xaasim wax mooy ndaw la lu tuuti loo xam ne tolloowut ak moom ay at tolloowut ak moom dara ci zahir mu ñokket jugee bërabam këram ñëw seet si ko loolu lu rëy la loo xam ne nii gone ga daa daal dugg ci lislaam bokk na ci it ci jëflante yu rafet yi ndax li ñuy wax yëpp daanaka yahud lañ ca madinatu munawara ñoom ñoo feesoon dell benn yahud boo xam ne ci kànfoori yahud yi la bokk moom nee na dafa yër téere yëpp gis ne sifaat yi ñu wax yëpp ci yonente bu mujj bi mu ngi ci yonente yàlla muhammad ba mu des benn sifa boo xam ne moom da koo léerut nee na moom bu ko leeree rek day dugg ci lislaam si fa boobu mooy lewet nee na lewet daal laa xamul ba xam Muhammad mii def na ko la déet mu ne naa fexe am ak moom relation boo xam ne danaa xam ba xam daal lewetam déet mu ñëw di dugganteeg yonent bi di dama ko ñëw di wax yonent bi ne ko daal di ko xamal ne ko moom daa am alal su bëggee mën na koo lebal bañ séq bor ñoom ñaar far ñu séq bor bindante ne bis sàngam la koy fay waxtu sàngam la koy fay waa ji di xool euh, yonent bi bis mu toog ak saxaaba yi yahud boobu mu ngi tudd Seydou Ibn Saana noonu la tudd ci kànfoor yi yahud yi la bokk waa ji di xotti sàppe yi saxaaba yi di jéggat di jéggat di jéggat ba àgg ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci biir saxaaba yi yëkkati kaddu yi ñaaw wax ko ci karamam kaddu yi ñaaw yooyu bokk na ci mooy yéen bannu haasim du ngeen fay bor maanaam saaga la ko def askan wi mu bokk yéen bannu haasim yéen du ngeen fay bor mukk Muhammad fay ma bokk nee na Omar jékki-jékki ne boccet jaasi ji xool ko xool bu xool bu méttee métti yéen ko eh toogal digal ko mu fayee ma fayee ko bu rafet te nga digal ma may fay bor daan ko waaye yow sax yow lañ waxante woon jotagut des na ay fan waa ji ne ko xam naa ne des nay fan dama doon seet ba xam jikkoy lewet ndax mi ngi ci yow wala déet téere yëpp wër naa ko melo yëpp gis naa ko ci yow melow lewet laa doon xool ndax mi ngi ci yow bis ni ki tey nag xam naa ne ko lewet nga ni ma la ñëwee fekk la sa biir mbooloo ma saaga saw askan ŋàññi la fayeeku la bor poñe la nga ñëw dal ci kaw Omar ci laa xamee yow mii ku baax nga seere naa ne amul benn mbur bu dul yàlla seere naa ne yow mi yàlla moo la yónni yónni bi sallallahu alayhi wasallam daa yëkkati bor ba fay ko ne Omar seetal loo teg ci loxoom nii nga ko tiitale kat sañoo ko ko def ndax dama ko yoreel bor Omar yëkkati dara teg ko ci loxoom ca yahud boobu nga xam ne moom it ca war a la xewoon loolu bokk na ca muy xisa bii nga xam ne sa Sahih Bukhari yi indi na ko hadis bi nii nee nañ yahud yi dañ daa ñëw ci yonent yàlla Muhammad naan saamu aleykum saamu aleykum mooy tuskare waxut asalaamaaleykum de asaamu aleykum loolu aw saaga la mooy tuskare ak deegu bette ak deegu teel yàlla na la dal sa kaw yow yow yow Muhammad ci waxin lool la. bis ñu ñëw fekk soxna Aysa toog ak yonent bi bi mu waxee loolu rek Aysa daa daal di yuuxu ki wax loolu ne ko yow itam tuskare wu ak deegu ñaaw ak rëbbum yàlla ak merum yàlla yàlla na dal sa kaw yonent bi daal dal ci kaw Aysa ne ko lu tax ngay wax moom lii lépp ca moom yii àggu fa. moom wax na salaamaaleykum man nee naa ko waaleykum yem ca moom lu tee nga yem foofu lii jëflante bu rafet la muy idfa billati hiya ahsan del jëflante jëflante bu rafet ku la jëf lu ñaaw booy fayu na nga fayu kem lim la def soo baalee moo gën loolu ci nga xam ne xewoon na ci madinatu munawwara ci jëflante yi nga xam ne doon na ko def ak ñi mu wuteel bokk na ci muy ci atum juróom-benneel bi bi nga xamee ne ci la toogoon doon bind buur yi lettre lettre yooyu feeñ na ca muy respect ak worma ci buur yi nga xam ne moom la bokkaloon jamono moom saa yu bind danaan adimu furs maliku maliku sàngam maanaam pouvoir bi nga xam ne ki mu wuteel jamono da koo yore wala ndomba tànk bi nga xam ne da koo yore da koy defaale ci biir leetar bi soo ko wax li muy wax loolu jëflante bu rafet la moo tax mu xaw xis ma tuddoon léegi ne ba leetar ba ñëwee ci moom dugut ci lislaam waaye yëkkati na ay cadeau yu baree baree bari euh, jox ko yonent bi sallallahu alayhi li ko waral mooy bi mu jàngee leetar dafa xam ne kii ku am worma la kii daal nit ku baax la ci war ma ji nga xam ne jox na ko am na buur bu ñu naan xirax la moom it dugg ci lislaam waaye dafa waxoon ne ba lettre ba ñëwee nañ ma xoolal ci marché bi koo xam ne ci waa Màkka la bokk ma am laaj yu ma ko laaj ci kii nga xam ne moom a bind bi ba yàlla defee ñuy xool ñu gis noonu yonent bi nga xam ne ca jamono jooja moo gën a mag ci noonu yi ca jamono jooja ndax mujj na tuub nag muy Abu Sufyaan ñu woo ko mu wow laaj ko laaj yu bëree bari muy ndax xamoon ngeen ko ci wax lu amut ñu ne ko wax dëgg yàlla al amin lañ ko doon woowee ci askan wu mbokk mu ne ko ah wax dëgg yàlla wa huwa fii naasu nasabin ci askan wu rëy la bokk ñun ci ñun laaj yu mu ko laaj daal ba mu waxee xiraq la dane ko te dëgg-dëgg man xam naa ne buur laa buur xam naa ne yonent yàlla la waaye su ma duggoon ci lislaam danaa ñàkk sama nguur gi ndax maag ñëpp ñooy yem waaye nag danaa rafetal ak moom loolu ay mbir yu rafet la yoo xam ne nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na ko siq ak buur yooyu ca waxoon naa léegi ne najaas yi moom it ci ñi bindoon leetar ci la bokk moom it dugg na ci lislaam moom najaas yi bokk na ci jëflante yu rafet yooyu nga xam ne doon na ko def ak ñi nga xam ne daa wuuteeg ñoom muy la xewoon ca fatxu Makka yonent bi muy def fatxu Makka daa wax saxaaba yi ca booba ma nga dajale lu mat fukki junni nit am na ko ci mbooloo fukki junniy nit am na ko ci mbooloo bi muy def fatxu Makka waaye lam wax saxaaba yi mooy na ngeen fexe ba bu deret tuuru yéen seen objectif na nekk Kaaba ga waaye ku taxaw ci bunt yi ne du ngeen dugg na ngeen ko jëflanteek moom moo tax fat fatxu Makka deret ju bari tuuruwut ca dem na ba àgg Makka ba mu demee ba àgg Makka ba daaneel xërëm ya ba wër Kaaba ga ba def li mu war a def lépp dañoo dajale ñëpp nag muy noonu ya nga xam ne ñoo ko sonaloon démb ñoom ñëpp ñu toog am kers ak siggi xool ko mu laaj leen na leen waaye yéen sax lu ngeen yaakaar ne moom laa leen war a def ñoom ñu ne ko fii nga nekkoon xam nañ la def nga fi fukki at ak ñaar yow doomi ku baax nga ku baax nga doomi mbokk mu baax nga xamoo lu bon mënoo lu bon soo ko bëggoon doo ko mën ñun xam nañ lool axun karim wam nu axun karim wam nu axun karim xayran yonent bi na leen izhabu fa antum tulaqa dem leen yéen ñëpp jéggal naa leen bis ni ki tey njéggale gu mat googu noonu la ko ca lam jural jullit yi mooy ñaari junniy nit ñoo dugg ci lislaam bis booba keroog bokk na ci mooy bay a yooyu ñu doon def bay atu nisa ba mu jotee muy jaayante gi nga xam ne jigéen ñi ñoo doon jaayante jigéen ñi dañoo jël hënd ne ko yaay yor suñu kaddu ca Hind xam ngeen ne yonent bi daa waxoon ne bañ reyee Hamza danaa rey juróom-ñaar fukk ci ñoom keroog yàlla daa ñëw dal ci kaw yonent bi ne ko ne ko suñ dalee seen kaw way naa way naa xam fa aqibu bi misli ma aqibtum wala in sabartum la huwa xayru la huwa euh, xayru li sa wa in sabartum la huwa xayru li sabirin bu ngeen baalee moom moo gën waaye bu ñu leen tooñee da ngeen fayu kem li ñu leen tooñ Hind bi mu ñëwee yonent bi di nangu jaayante yi di nangu jaayante yi ba Hind ñëw yonent bi daa du mooyu kaala gi mu yoroon da ko wàcc ci xar kanam gi doon a xool hind ndax lam defoon Hamza xotti dënd ba di yëy res wa dag xuuf nopp ya xuuf baaraam ya def ko caq di wër màkkata di wër màkkatal mukarrama naan leen euh, kii mooy Hamza ibnu Abdul Muttalib yonent bi image boobu moo ñëw ci moom waaye yàlla dafa dal ci kaw yonent bi nag ne ko su ñëwee jaayanteeg yow laaj leen laaj yi su nangoo laaj yi nangu leen seen jaayante moo tax ba mu ñëwee rek daa daal di bësante xolam li muy wuuteeg ñoom yëpp ak li xamee ne am nañ fu njaar yëpp ci lu ñaaw laaj leen laaj yooyu bañ nangoo laaj yooyu yonent bi nangu seenu jaayante ñoom soxna yooyu noonu kon yii yëpp ay xeeti wuute la yoo xam ne ni yonent bi doon na ko wuuteeg aw nitam ca makkatal mukarrama ak madinatu munawara yi nga xam ne manees na ko noonu topp at mu ne ak la ca xew sana uula ba at mu mujj ba nga xam ne mooy atum fukkeel ba ak benn ci la wàccu liggéey yooyu yëpp ay wuute yu mu doon def yoo xam ne da doon jox cër ñi mu doon wuuteel àgg ci di leen ñaanal waaye ñaan googu daa amoon limite ñaan googu nag daawu leen ñaanal mukk nag njëggalug yàlla daawu ñaanal mukk it yërmande yàlla waaye fu masatul rek da ñaanal ak ginneeku ci lislaam wala mu ñaanal leen ñaan yoo xam ne nii moo xam ku tawat ci ñoom mu ñaanal leen wér gu yaram mu seet si leen bu ñu amee xew mu ànd ko ak ñoom di rafetal ak ñoom lii mooy wute gi nga xam ne yonent bi doon na ko def ak saxaaba yi doon na ko def ak saxaaba yi waaw doon na ko defee ñi nga xam ne duñ ay saxaaba te nekk ay yéefar am na ci ñu bari ñoo xam ne nii jëflante bu rafet ba mu doon jëflante ñoom ñoo tax ñu dugg ci lislaam lii nag moom ab jàngat la boo xam ne ku dib jullit ci jamono jii nga xam ne dañoo toll ci jaxasoo goo xam ne nit ku nekk ci kaw suuf am nga koo xam koo dugganteel koo xam ne nii bokku leen diine wuute ngeen ci di gëm-gëm wuute ngeen ci pas-pas nga mën a jànge nga mën a jël ay bind ci bind yi nga xam ne yonent bi doon na ko def ak ñi nga xam ne daa wuute woon ak ñoom ci pas-pas bay jëflante ñoom jëflante bu rafet waaye mënees na cee jàngit ki nga xam ne da ngaa moom pas moo xam ngeen bokk diine bokk tariqa léeg-léeg ngeen di wuute ci yenn wute yi ngay jëflanteeg jëflante bu rafet bi nga xam ne yonent bi doon na ko def ak saxaaba yi nga xam ne indi woon nañ ci moom it ay namage yi yoo xam ne nii bu waxtu yu yaatoon nañ ci indi yu bëree bëri lii ab jàngat la wala bind la boo xam ne mënees na ko jàngee ci borom guddi gu tedd gi mu yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam noo ngi jéglu ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Serigne Murtada Sylla ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne doon na ko jàllale léegi mu jëmoon ci wuute gi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam jëflante bi mu daan jëflanteek ñi mu wuuteel ci wàllu diine mu indi ci tomb yu ama am solo bokk na ci tomb yooyu leeral gi mu leeral ne wuute munta ñàkk sunu borom moo ko bëggee noonu ci coobare sunu borom la amee ndax wala yazaaluuna muxtalifiina mu wane na it yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu borom daf ko waajal ngir mu yanu risaala bi nga xam ne moom la war a indi te jëme ko ci xeet wi nga xam ne mooy xeetu muhammad alayhi salaatu wasalaam wax na it ne wuute googu mën naa amee ci ñaari mbir nit mën naa wuuteek moom ngir jublu ko noonoo waaye nit mën naa wuuteek moom ngir ñàkk a xam wala sax ma dolli ca nit mën naa wuuteeg moom ci wàllu gis-gis rek ci wàllu gis-gis te loolu bari na ci dundam xare badar bari na cay wuute lool yoo xam ne saxaaba yi wuute nañ ca ak yonent bi te def leen caa mujj fekk si bokk na ci it ci marxala makkiya bi wax na ci ay ay exemple yu baree bari joxe na ko ci lu mel ne wuuteeg Seydina Omar avant muy dugg ci lislaam ak ku mel ne Abu Jahlin te ku ci nekk gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam wuute gi mu doon wuuteeg moom da ci doon jëflanteeg jikko ju rafet waaye boo ñëwee ci marxala yi nga xam ne moo gën a yaatu ci wàllu jëflantiin ak ñeneen ñu bokkut ak e, jullit ñi foofu gis nañ ne taxaw na fa taxawaay bu am am solo nga wane ne bi mu ñëwee ci madinatul munawwara li mu njëkk a def mooy e, tabax jàkkaam jooju waaye mbokkale jullit ñi ñu doon ay bokk waaye it mu am lu leen tënk mooy wasiixa madiniya boobu wasiixatul madina boobu nga xam ne moom la doxoon te tegoon ca la nga xam ne moom la bëgg comme ay tomb yoo xam ne dañ ci doon déggoo muy lu ama am solo ndax bu ñuy waxtaanee ni yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon jëflante ak ñi mu wuteel diine da ci fes ne kon danañ ci mën a jàngate ne nit ku yaatug dënd la yonente bi alayhi salaam dinañ ci jàngate it ne nit ku mënoon a jéggale la te loolu feeñ na ci misaal yi nga joxe ci marxala madiniya boobu nga xam ne ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam gënoon a jëflante ak ñi nga xam ne ñoom la wuteel diine te loola rek mooy idfa billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun hamim loolu sunu borom moo ko ko orienté woon ne ko nanga nga jëflanteeg ñoom lu ñu ñaawal jëme ci yow na nga jëme lu rafet jëme ci ñoom loolu mooy ki bëggoon a jël kanam feeñ na ci yaatug dënd gi ak jéggale gi wax nga ci xisab Saydu ibnu boo mu nga xam ne moom da doon nattu si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba créé ba ba bor digganteem ak moom ba ñëw euh, poñe ko ne ko yéen waa Xuraysi nii rek ngeen di def du ngeen di fay bor te Omar ne ko bàyyi ko ma wax ko ni ñuy faye bor sa boobu yonent bi aleyhi salaatu salaam daf ne ko man kay nga war a jàngal ni ñuy faye bor jox ko mu fay bi ba noppi loolu mooy yaatu dënd ak mën a jéggale waaye gis nga kooku ñëwoon ci jàkkaam jooji doon fa tuur ndox bi saxaaba yépp réeree wuti ko yonent bi daf ne bàyyi leen ko ba mu ñëwee mu ne ko liiloo ci jublu loola mooy li ñu doon wax léegi li nga doon wax ci ne wuute dina amee léegi léeg ci réer loo kooku moom réer a ko jàppoon ndax xamutoon ne barab boobu barab bu ñu defee loolu la kooku moom it ci noonu la jaare dugg ci lislaam kon waxtaan yu mel nii lu a am solo la ñu di ko waxtaane di ci fésal ak mën a jéggaleem ak yaatug dëndam ci jamono joo xam ne àdduna bépp ko soxla rawatina réew mi ñu nekk jullit ñi ci seen biir bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu àndee yaatug dënd ak mën a jéggale dina mën a jur ñu gën a mën a am force gën a mën a am doole ndegam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi mbokkalu toon diine sax la amoon xubbikuk dënd googu ak yaatu googu cee jàngate ne koo jekku nga jéggal ko jekku say noonu ba noppi jéggal leen loolu bind bu rëy rëy boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal jàngale na ko ci anam gu yaatoo yaatoo yaatu waaye jëwrinam ji nga xam ne moo ko doon liggéeyal it muy Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ku ne xam ne ne moom it noonu fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci jëflanteem ak noonam ci jëflante bu rafet boo xam ne ci jikko ji rafet da koy lal jëflante na ko ñoom ci diggante tukki bi ca géej ga ku ne xam ne liñ ko doon xiirtal lépp ci xeeti ñaawteef ak ci xeeti jafe-jafe lenn lu ci nekk teewutoon ba mu demee ba jekku leen ñoom it daf leen a jéggal kon dafa bokk ci jéggale ak yaatug dënd dafa bokk ci jikkoy sang di bokk ci jikkoy nit ku baax loolu kon ñu jàngite ko ci bu baax a baax a baax kon waxtaan wi sëriñ Mourtada am na solo lool li ñu ci doon séentu lépp am nañ ko ci muy liñ ci doon séentu ba joxoon la ko am nañ ci lu kawe sunu njot kon ñu ngi ñaan sunu borom gën laa taxawu te sàmm la ba yeggale sa yéene ak ci sa taxawaay ci lislaam ak ci yoon wi lépp kon mbokk yi loolu moo doonoon waxtaan wi nga xam ne moom la leen daa daaira muxaddamatul xidma ak rawdu rayahin doon tànnal ci tombu ren bi mooy ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jëflante ak ñi ma wuuteel diine ku topp waxtaan wi te doon ko teewlu di nga gis ne Serigne Mourtada indi na ci lu ama am solo loo xam ne kenn ku nekk war naa am taxawaay boo ca war a am jàngat goo ca war a def ndax guddi gi loolu rek lay jëriñ mooy jàngat siira yonent bi alayhi salaatu wasalaam te bokk na ci jàngat ci siira yonent bi sallallahu alayhi la ci ëpp solo mooy jàngat aw doxaliinam ak jëflanteem ñi nga xam ne ñoom la wutee leen ci wàllu diine te mooy yaatu dënd gi ak ubbiku gi ak mën a jéggale gi kenn ku ci nekk xool la cay sawal nga jël ko ci kon daal loolu moo doonoon waxtaan wi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.